asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi bàyyi xel seen chaîne Assalaamy TV tey jii alxamis 7 euh, mars 2019 dëppoo woon nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci maamu koor di jumaa de saani atum 1440 ginnaaw gàddaak yonent bi salallaahu alayhi wa jot nañoo séentu weer wi ci commission bi nga xam ne moo nekk ci Touba Mbacké ci ndigalul xalifi général de Mourides ginnaaw bi nag gis nañ weer wi kon suba. aljuma dëppook 8 mars 2019 mooy benn fan ci rajab di ndeyu koor atum 1440 ginnaaw gàddaayu yonent bi salallaahu alayhi wa kon li nga xam ne moo di màggalu kazu rajab gi mi ngi war a dëppook guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab di war a doon mardi 2 avril 2019 di ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë jëf